waaw Mbàkke sakkati leen tamit seen jàppale seen taxawaay seen yéene ak seen engagement ndax le 23 janvier fii la dayoon ci marché jëpp jëpp ci gaaru Mbàkke bi ñu woteel ñu en masse jàppale ñu ba ñu nekk tey le maire de Mbàkke bi yàlla defee it d'accord nga candidat ci élection yi ma ne leen kat élection yi la page des élections est tournée dañoo fas yéene talatu loxo ñëpp ànd ak ñëpp liggéey Mbàkke loolu nag toog ñu weer ci mairie bi président de la République Macky Sall recevoir ñu laaj ñu suñuy yitte ak suñuy bëgg-bëgg moo waxal bëgg-bëgg Mbàkke ak yitte waa Mbàkke amuñ ay yoon nekk amuñ hôpital amuñ maire bu bees amuñ ay tali amuñ stade bi pareegul wax ko li nga xamante ne yëpp mooy yitte waa Mbacké mu jël engagement jàppale ñu ci kon nag tegu ci ñaari weer ñu lancé travaux tali Mbacké Daaru Salaam def ab yoon déviation bu jëm guddee déviation boobu nag dañoo fas yéene tamit éclairé ko def ay lamp mu leer nañ kon tey ndaje li mooy indil ay oto mbalit ak oto vidange oto vidange bi kese charge salaire ya xamante ne nii moom mooy mooy chauffeur yi recruté dina jël en dina tax it fii ak ay weer wala fii ak at incha allah ñu am yeneen camion vidange pour Mbacké gën a set sunu ambition mooy fexe quartier bu nekk Mbacké am auto ramassage ordure loolu mooy suñu objectif kon nag damay sant bu baax a baax Mamadou Badiane lycée Bawol moo jël oto ba leen kaar bee may ko joueur yi ak encadrement yi jël oto mbalit may ñu ko dolli ko ci li ñu def kon nag dama woo képp ku dëkk Mbàkke képp ku bokk Mbàkke fekk fi baax wala nga dëkk fi nga man dara man bokk ma ci maire yi bloqué kenn dama fas yéene képp ku dëkk Mbàkke ma waxtaan ak yow ñaax la nga jëf ci Mbàkke ndax état doyul Galaba doyul waa Mbàkke yëpp tey buñ mobilisé woon tamit liñ bëgg ci Mbàkke yëpp mënuñ ko am ci benn mandat kon li ñu bëgg nag mooy waa Mbàkke yëpp jox seen maam euh, waa Mbàkke yëpp def seen loxo ci liggéeyu Mbàkke kon maa ngi sant bu baax le président la Macky ndax bi mu ne ko xale yu Mbàkke dañoo bëgg stade bi gaaw pare dana ma dinaa accélérer travaux yi tey jii nag stade ba war ngaa gis ne liggéey bi mu ngi accéléré wu te fekk weer incha allah ci yoon jàpp naa ne teg pelouse bi ak la charpente métallique bi couvrir tribune bi pour Mbàkke am stade président Macky Sall ñëw fi inauguré ko loolu laa ko dañoo jëm nag ci ay élection élection mooy dàbbali mooy confirmation engagement bu waa Mbacké amoon yëpp waa commune Mbacké ak le département de bëgg ñu am une victoire éclatante pour permettre au président de la République d'avoir une confortable à l'Assemblée nationale te ñu waa Mbacké dañu war a jouer suñu partition. élection député yële weesu dama waxoon waa Mbacké ne leen ne bu ñu wootee pour Benno Bokk Yaakaar président Macky Sall dina am ndam wu tamit dina am majorité dama bëgg ëllëg bu ñu am majorité waa Mbacké événement bi ñu fës bu baax a baax a baax loolu jàpp naa ne ñu ngi ci yoon wi ndax président def bu baax ndax bu jëlee sëñ Galas Kaltom doomu si àll si Alaaji Baara Mbakke sëñ sëñ Fallou dëkk fii dëkkam ñun député liste départemental boole ci sëñ Cheikh Bara Ndiaye boole ci maanaam maanaam Diallo boole ci sunu jigéen jigéenu Mbakke Soxna Daba Diouf ministre Matar Diop de la liste nationale ak it Cheikh Abdou Gaye Fatma kon ñooñu ñëpp jàpp naa ne ak les suppléants on a fait une excellente investiture kon nag des moo ñu laxasaa yu ñëpp ànd liggéey nekk benn xam ne tey jii ñu toll nii fi mu wax yéen tembe président de la président de la Macky Sall moo soxla moo bëgg am ndam suñu département Mbacké kon nag ñu ngi rafetlu bu baax a baax les alliés ñi nga xam ne dañoo laxasaayu ànd ak la PR ak la coalition Benno Bokk Yaakaar yëpp di bëri également un remerciement particulier ak ak ñi nga xamante ne nii tey dañoo defoon ay liste di laaj Mbàkke ndax bu ñu àggee ci local ku nekk ci ñun nga am yéene ci Mbàkke sañ nga taxaw laaj Mbàkke kon nag tey bu ma ñëwee tey ma si ma Mbacke mu Moustapha Diop ñoo fekk suñu fi laaj ñoo ñëw engagé woon jàpp nañu jomba ko ñëw tamit ne lay ne lay bàyyi lépp ñëw ànd ak la de huit mille deux cent voix ak apport ñi ma tudd ak ñi ma tuddul ñëpp jàpp naa ne war nañoo am plus de quinze mille voix au niveau du département de Mbacké au niveau de la commune de Mbacké kon nag Mbacké mbàntaan sama loxo ñëpp ñun amul xaarma yàlla kenn dañoo am yéene ci ñëpp parce que yéene ànd ak képp ku dëkk Mbacké ngir liggéey Mbacké soppi xarkanamu Mbacké fan yii ñëw fii ak ñaari weer incha allah Mbacké day yokk bu baax éclairage public bi dina yokk ndox mi ci quartier périphérique yi ndox Mbàkke bi ñu doon jooy met na xale bi président de la république jox na institution ay entreprise yi nga war a xam ñi ñi war a liggéey jëlee ndox ma Sadio indi ko Mbàkke ñëw nañ Mbàkke tey bi ñuy gas tiwo yi pour Mbàkke am ndox mu ne kon dama ne li ma wax mooy loolu lépp nag balaa incha allah dëkk bi dina yokk courant bi yokk éclairage bi yokk ndox mi te fii ak fii ak euh, un an maximum ñetti entreprise yu war a jëlee ndox mi Sadio indi ko Mbàkke danañ àggali liggéey bu mat sëkk kon nag. jigéeni Mbàkke nag ñoo des jigéeni Mbàkke man awma seen fay muy góor di jigéen kon bu baax ni yooyu ak remerciement bu am fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem yaayu moo tax ma ne fii ak 15 fukki fan ak juróom te boulevard ba damaa bëgg a financer mbootaayu Mbàkke yëpp mbootaayu Mbàkke yëpp quartier yëpp dina yor sama seen quartier yëpp mbootaay yëpp ñu may leen financement du ma leen lebal du ma leen dig du ma leen booleeg banque dañ leen di financer directement may leen ko ngeen liggéey